dellusiwaat nañ seen émission c'est politique ñu dalal tey le maire de Gueule Tapée Fass Colobane monsieur euh, Ousmane Ndoye Turando maa ngi lay nuyu bu baax. di am mbégte di la dalal ci c'est politique. xëy naa lu baax mbaa yaa ngi am jàpp. sant suñu borom bu baax. alors fi ci toll nii ñu ngi jëm ci local yi investiture yi tar na mais laataa ñu cay ñëw dañu jékki-jékki rek dégg la Dubaï ci euh, ndaje bu rëy ba fa amoon président Macky nekkoon fi loolu yóbbu Dubaï. waaw xam nga nag man avant may nekk maire. dama nekk euh, nitu développement je suis un opérateur économique je suis membre de l'UNACOIS membre de l'UNACOIS je préside une commission ba pare nekk le conseil spécial du président de l'UNACOIS quand on parle affaire na ci àdduna wax dëgg yàlla l'union nationale des importateurs des commerçants importateurs du Sénégal war na ci bokk et le patron de l'UNACOIS tudd Idi Thiam c'est un des grands patrons du quand le président de la République sort dans des affaires yu mel noonu dafa di génn ak les différents patrons tamit di patronat Sénégal patronat Sénégal yi di ci am def ci bokk man maay maay man takkandeer bi di ci am donc nous sommes partis dañu demoon foofu euh, accompagner président jëmbal Sénégal foofu mais surtout dañ demoon pour projet boo xam ne nii dafay lier UNACOIS ak l'union des chambres économiques des Émirats arabes unis c'est un grand projet qui fait que tey bu ñu bu ñu ko pare euh, bu Dubaï yi ñëw fii dañuy jaar ci commerçant industriel sénégalais yi ñu xool na la ñoo lawale mbir yi donc lu rëy la lu rëy rëy rëy. donc lu muy impacté. loolu ci suñu tissu. waaw mooy mooy mooy partenaires yi. dañuy am léegi ay naataangoo sénégalais yu ñu mën a waxtaanal ci développement parce que ñoom ñoo ñu fi pour aider ñoom ay opérateurs économiques lañu yu ñëw pour gagner. mais nag dañ koy diggaale ñoo xam ni dañuy ñoom dañuy dañu bëgg a gagné donc benn benn li ñu signé ñoom bu ñu amee ay investissement yu ñu bëgg a def ci dëkk bi ñu dañuy bokk ak ñoom nag xam li ñu soxla suñu dëkk ñoo koy wax ak ñoom pour ñu ñëw ñu jàpp ensemble ñu def est jot na am ah. ñu soxla fii waxtaane ko foofu ba ngeen jàpp na xëy na dina doon un truc gagnant gagnant waaw xam nga nag doon na dommage trop hmm. ay ponkal jóge Sénégal dem ba Dubaï te xamuñu lu fay wuti Ousmane nag yéen question boobu boo ma ko posé dañu bëgg fan la. ci <laughs> waxtaan bi la rek. waaw mais mais euh, tënk nañu la ñu war a tënk lu ñuy def ñun xam nañ que teg nañu salon yi ñoom daanu ñëw ñun daanu dellu dañuy créer benn bureau économique ici créer benn bureau économique foofu ñu jokkoo pour avancer ci biir. mais lu ko gën a yaatu dañoo wax bamboula am ñoo xam gis nañ leen fa ñu ànd président Macky Sall te seen place néew fa ñuy tudd bay tudd ay ñu mel ni Rango. ni ku accompagné woon ah cette jeune fii euh, su ma ko mënee wax dëkk setteuse boo xamante ni amoon na fi toog ay jamono ak euh, Mamata Mamata bu Mamata waaw ONG Jamra hmm. ñu naan ko Rangu xam naa peut-être xëy na doo xam te bi ñu bëri dégg ah bokk na ci délégation bi ñu naan bokk ci ay demande am ci am ñeneen ñu gis ñoo xam ne xëy na accompagné nañ le président Macky Sall jàpp ni. boobu exemple boobu boobu moom ko sànq xaw gisee du ko xam. ba it nag euh, euh, loolu ñuy wax naan dafa am lan. Bamboula dafa am ñu bëri ñoo xam te ne demoon nañ fa seen place ñëw fa une délégation boo xam te ñu bëree ca ne contribuable sénégalais di ko yëg ñooñu ñëpp dem ah euh, te en réalité ñu ci bëri boo koy xool peut-être melu yow ndax sànq expliqué na lu waral nga teew fa peut nga nag ku mu neex nga dem Dubaï wax dëgg yàlla am na nit bu am paasam dem Dubaï xamu leen lu ko fa yóbbu. ñu ne mu ngi ci bambula bi bay bay ku mu neex nga am sa passe dem Dubaï fekki fête ba fête moo fa am c'est c'est c'est le c'est le championnat du monde des affaires c'est pas une fois championnat du monde des affaires ku am am nga droit dem ko dajee donc ma sàmm dem ba dem na nit ñi dañ bëri est-ce que président moo leen fayal est-ce que état bi moo leen fayal man du ma wax lu ma xam hmm. mais Ousmane hmm. ku mën a dem Dubaï fii ba mars yéen ñi nga xam ne da ngeen am ay ay entreprise dem leen Dubaï ngeen wut ay entreprise ay ay ay partenaires pour ngeen réaliser wu loolu moo tax nit ñi dafa dem maintenant nag nga dem fa nekk Sénégalais fekk fa nit ñi di di di tëgg tama nga fekk ci tama ja yow kii andi tama doo ko mënal non nañu bàyyi nañu bàyyi façon wax yi nañu rafet nañu rafetal yëpp mm. lu day ni Sénégal dem bitim ñu bëgg ñaawal taxawaayu Sénégal foofu man Sénégalais la ma ko la ma fa gis laay wax c'est des opérateurs bi je l'ai appelé champion du monde des hommes d'affaires ay opérateurs économiques gis naa leen évidemment comme pour journée Sénégal bi il faut qu'on parle de la culture du Sénégal il reste évident que Sénégal andi na ay chanteurs yoo xam ne daañu way ñu xam ne Sénégal lii la ñu ay fecc fecc euh, jëmbe ñu xam ne li Sénégal loolu ci suñu culture la bokk su fekkee loolu moo tax ñuy wax wax dëgg yàlla am na fa te loolu ci bésu ouverture ba à la place publique devant nit loolu am na fa. d'accord mais loolu ñu ñàkk. est-ce que président waroon na dem ba foofu fu mel ni euh, Arabie Saoudite quand même foofu Sénégal di woo nit ñi naan ah nañ ko seetal nañ ko lii. jàppal nañ war nañ lu bàyyi mi wax. ba foofu ci kanamu. Ah. waaw mais mais. waaw amee fa xam nga xam nga xam nga critique pour critiquer man ko def président y' a un an dafa yow souhaité ne cleaning day. oui est nit ñi dafa rappelé ñoo war a set ñun ba pare. dafa dafa mais que ko normal na ak fu mu ko mën a rappelé bi mooy ko nit ñi dégg pour ñu doxe ko yëf fi dëkk bi salté na. c'est ça la vérité. ngeen am part bu rëy nag. yéen maire yi ah bu rëy. 19 communes de Dakar ah bu rëy. oui ah fii la. xamul tax jafe-jafe yi ba léegi xamul tax parce que dañu amul moyen désencombré. Hmm. amuñu moyen désencombré. ma jox la exemple. nga ñëw benn waay bàyyi bu guddi mu wàcce benn conteneur na ko rëll ci benn koñ lan nga mën ñoo gis constaté ko ne def conteneur bi jógee. mu ne de naa ko fi jële wala yow nga jëli ko fi nga jëli ko fi nga dem fay benn mécanique fay tracteur yanu ko yóbbu bulum tu as dépensé de l'argent alors que mairie bi amul xaalis nga yow su te ne je vais faire une opération de désencombrement koñ bi dafa tilim quartier bi dafa tilim nga buub ñëpp fay xaalis bu bari lépp dem ñu bàyyi la une semaine tu n'as pas les moyens suivre ñu dellu si waat jaral nañu ñu boole laa ku ne hmm. état bi moo war a yeewu suba teel te commencé na ko avec le colonel Mbaye. ah oui ah oui oui yeewu suba teel jël armée bi avec les moyens de l' armée désencombré réew mi joxe instruction police ku def lu warul def police daj sa kaw ñu on n'a pas de police. les maires n'ont pas de police les maires n'ont pas les de faire. ce malgré yéen li ngeen doon yëpp institution bi ngeen incarné yëpp bu ñu waxee ñu ne yéen maire daal da ngeen néew doole ci yu bëri. c'est-à-dire leen ci niveau euh, yi nga xam ne des fois yi ressources yu am solo. mais ba léegi daal. bàyyi leen wax waaw mënu leen daal ñu mënal seen bopp bañ bëri. rawatina setal ba assurer suñu. non nañu set suñu bopp ñun ba pare bala ngay setal gox bi nga setal ki xam ne buntu këram bu jëlee bari na setal boppam ba pare. waaw ah, loolu mu ànd ci moom. d'accord avec vous man gis naa fi ah, jeex ñëw ñu jël bari xëpp ci tali bi loolu ndam la est loolu ndam la donc nañu commencé ci ñun bu ñu commencé bi bari suñu buntu kër léppay baax demal une du Cap Vert moi plusieurs fois doo gis kayit buy naaw parce que bu yow ñëppay bale oto bi ñaar jël li mu war jël fi ñuy war a teg mbalit ma fa lañ koy teg mais fii Sénégal da ngay génn oto mbalit bi dem ñu jël ko teg ci benn kañ tali bi kenn ñëw gis rek def ba mu doon jàll bon loolu mën duma ci dugg di critiquer état bi moo war a jël responsabilité bi te jël na ko état chef de l'état bi na état bi jël en charge opération de désencombrement def ci de parce que les moyens non pas les moyens les maires amuñu police. pour mën a def la police. est ci wàllu leadership aussi li ngeen di gën a mettre en avant euh, ci seen i bilan ngeen ci àddu est-ce que tamit bi nga xam ne moo war a indi cette conscience citoyenne mu sax ci ñoom ngeen koy doxee au jour le jour bu leen di permettre au moins ñu mën xam ne ah suñu maire kat mu ngi jëm ci leen di gunge est-ce que ci côté politique ni ngeen di en avant réaliser nañ lii def nañ lii côté maanaam ni ñuy construire sa gox ndaw ya fa nekk organiser leen mais bi nga jiitu te wane ni kat seetlu gox bi man la gën a yitteel waaye seen njëriñ mu ngi te genre leadership bi mel noonu. souvent on dañ naa waaw du ngeen koy incarné. donc bëgg wax ma yow nan lañ koy parce que li nga wax nii école ba ci biir kër ga ca école ba fa lañ ko war a defee parce que yow li nga mën mooy jën gis gox boo xam ne bii rafetul nga wàcc wax nit ñi ne rafetul mais il faut que nit ñi. am conscience citoyenne il faut que école yi ñu jàngalaat nit ñi parce que ñun bi ñu nekk xale mais dañuy daan jàngal loolu mais léegi est-ce que nañ ko conscience citoyenne nag yamul ci tribun ah. hmm. parce que bu ñu demee ba euh, université professeur dox benn xale wàcc nangu micro ko ba nga xam ne dëkk bi tas na nañu sawite tëri hmm. parce que li ñu war a defar dafa bari c'est à la base qu'il faut tout refaire on va parler de d'insalubrité on va parler de loolu mën a wax lu ne hmm. nañu jàngalaat nit ñi nañu yaraat nit ñi yar leen ci biir kër yi yar leen ci école ya il faut accepter aujourd'hui de s'arrêter tac et de dire on change de direction ci bëriwu de l'éducation des masses mais jàppoo ni yéen en tant que maire moo xam élus locaux ci cinquante quatre euh, cinq cent cinquante deux wax xaw ma cinquante quatre collectivité territoriale nekk ci réew mi wala département yi c'est-à-dire bu ñu booloo woon leadership fort boobu noonu ñu tegaat ci gox goxaat yi ne serait pour joxe temps bi comme le président Macky Sall ko defee tàppu ni aussi tamit suñu boole man waxuma sax euh, cinquante quatre yi cinq cent cinquante quatre sax mais déjà rek département bu Dakar on a dix neuf communes tey yéen dix neuf yi bu ngeen dajaloon ci benn objectif commun mooy Ndakaaru na set wecc avec comme ni nga ko waxee léegi euh, l' accompagnement de l' état du Sénégal waru mën a impact ci vécu les populations du côté boobu dafa mel ni ñuy waxee nii boo nee école la parents yooyu ba vous dégagez vos responsabilités. non non donc non non man je suis parent. en tant que je suis parent donc mënuma dégager sama responsabilité. Oui. quand je parle des parents moi compris pas compris. il y a des enfants qui vont à l'école. nous sommes tous responsables de ce qui se passe nous sommes tous responsables nous n'avons pas suffisamment jot jottaluwuñu li li ñu war a jottali xale yi jottaluwuñu leen ko ni mu waree te nag euh, euh, dafa dañu jàpp ne nañ ko xam ndaa bu gën a xam dafa am ay éléments extérieurs yu gën a ñëw gën a influencer bi. ah oui ah forcément. l'internet. le le le adduna bi léegi benn village que du xew ci max nga xam ko New York loolu loolu mooy adduna bi donc ni ñu góorgóorlu ba di roy lu baax te ñu dañu roy lu baax dañuy roy ba ba dàq roy la loolu moo ñu moo ñu yor mais tu de de des 19 communes. 19 communes war nañu mën a daje waxtaan ne lii la ñu bëgg def ñu defandoo ko mais bu ñu nee dañu koy defandoo te amuñu moyens yi nag gis nga ville de Dakar. Hmm. man de su ma nekkoon maire ville de Dakar. oui ak un budget de 60 et quelques milliards. dinaa jël mairie bu nekk ma def fa un milliard ne pour ñu toppatoo dëkk bi mu set mu rafet ñu jàppale santé bi un milliard rek muy dix-neuf milliards wàññiwul dara ci sa budget mairie bu nekk nga sas ko ko surveiller ko contrôler ko léegi ñu gis leneen. daa ko ku mel ni soo am nga ordre ni bu xamoon loolu dina ko def. lépp loo xamante yaa dina wax vulgaire yaa da xeex en tout cas bi mu defee. à sa décharge à sa décharge moom dafa dabe dafa dabe gis nga. liggéeyu maire gis nga man mi def maire sept ans bientôt man maa mën a continuer loo xam ne lii duma ma commencer à zéro que j'ai tout compris j'ai du temps à kii ñëwoon si jamais moi je partais waa ji ñëw il a du temps bala muy comprendre bala muy réaliser dara et les population dënnu lu dul baal dara dara. somme à sa décharge dafa dare. train buy daw nga lan nga ci dafa jafe bala ngay installé wu ba toog tout ça c' est ça le problème mais xëy na bu démarré woon bu ñu ko joxoon peut être possibilité moom mu démarré waat mu continuer xëy na dina doxalee neneen te xam naa ne jigéen la te ci yéen laay laa gis ci laa yaakaar ak cet ñooy defar kër donc jigéen waaw nu mën a defar dëkk bi. Hmm. mais est ce que les moyens suivent est ce que elle est toute seule loolu yëpp man dama ci dugg. mais justement yéen maire yéen ñëpp dañ koy wax ah ñu maire amuñu koppar amuñu moyen hmm. amuñu naan hmm, finalement lan ngeen def ci commune bi lan mooy liggéey bi c'est-à-dire. kaay ma wax la liggéey bi waaw ma wax la liggéey. assistance kaay ma wax la liggéey. man xam nga bu amee ngeen dem. lépp bu amee ngeen dem. ceeb noonu. kaay ma wax la liggéey bi. xam nga man xaw ma 19 19 maire la 18 yi xaw ma nu muy demee loolu soo bopp lay wax. quelle soit la la façon dont les gens me notent bi mooy andi fi alal andi fi alal parce que fekk ma fi alal. te mm. andi naa alal bi Tapée Fass Colobane. ah oui ah, ah man andi naa alal Gueule Tapée Fass Colobane damay wax. nit ñi nag xamuñu boo communiqué ba bëgg dee xam nga nit ñi lu bees lañ xam mais man ñun bi ñu ñëw Gueule Tapée Fass Colobane ñu jëm ñu ci fekk. ak fi ñu yóbbu budget bi lu yàlla ak yàlla. on était à 400 millions on yóbbu budget parce que budget prévision la. mais man dama indi koom-koom ci réew mi ci fii ci Gueule Tapée Fass Colobane un exemple. man bi ma rendre compte. des exemples nga ñu jox. des exemples. des. des. bi ma rendre man bi ma ñëwee ne patrimoine mairie bi oto la ab oto ñaari oto benn ma dafa panne. ak ay ay bureau ki taabal ak i bic ak i feuille dama waaru parce que fi ñu nekk siège HLM ko moom moomuñu ko ma ne mais mairie bi amul patrimoine ba pare ñu bëgg liggéey ñu ne ñu acte trois de la décentralisation mais naa maanaam may nañ la possibilité nga dem wuti partenariat waaw yow boo wutee partenariat lan ngay teg loxoom hmm. j'ai imaginé le peu qu'on c'est le marché de Gueule Tapée le marché de Fass nañ ko toj yëkkati ko à un niveau tel que dinañu jox valeur le marché de Gueule Tapée coûte 6 milliards aujourd'hui ah oui 6 milliards benn waay moo koy liggéey bu ko liggéeyee 5 ans la koy exploité bu ko exploité 5 ans ba pare bàyyi ko ñun on a un patrimoine de 6 milliards est-ce que 6 milliards boo ko amee mënoo dem banque ba àbb fa dara liggéey andi naa fi patrimoine marché Fass 4 milliards est-ce que loolu du patrimoine je pense que loolu mooy jaar loolu laa andi ma fi amuloon andi fi nag projet bi ñuy wax face émergent. face émergent face di projet boo xam ne bii Sénégal si tu veux e bu ndaw la. parce que composante PSE yi moom la jël andi ko Gueule Tapée Fass Colobane en disant c' est une commune te le développement forcément pour ñun ci base bi lay hmm. su ñu développé commune bu nekk Dakar ko Dakar développé bu Dakar développé euh, euh, région de Diourbel euh, sept fa la même chose def ko léegi Diourbel dem Thiès def ko léegi Thiès def. te loolu ñun ñu ngi koy def ak euh, le système des Nations Unies wan yu ne ñëpp ah, mais FINEAP moo ko initié. le moom moo ko initié ñu commencé ko te dama la ciy wax lu bari booy dem dinaa la may bind téere. boo xam ne bii dañ ko bind sur ce fameux projet là capture de la dividende démographique cas du cas cas de Gueule Tapée Fass Colobane. Mm. chef de l' moo ko préfacé. président sa Sall. Macky Sall himself mu def ci préface bi. mais mu ngi lancer un appel à tous les maires du Sénégal et d'Afrique de s'inspirer de ce modèle parce que c'est un modèle mais bu ñu ko réussir peut-être facile la. Hmm. mais lu muy réglé. mais lépp lay réglé. parce que la santé est visée. autonomisation jigéen ñi c'est visé. employabilité xale yi c'est visé. commencé nañu dans la santé defal benn maternité bu bees. ah oui bu bees tax demal nga xool ko. defar nañu fii ci ci ci ci ci école Mangué defar nañ fa benn centre de formation boo xam ne bi dafay jàngal suñu jigéen ñi suñu jox koom-koom jàngal leen nan la ñuy defee céréales yi nan la defee ay jus fruits di ko jàngal ba pare di leen financer di former xale yi xale yi ñëpp ngi jël conscience loolu tax mairie bi dina metti parce que fi mu ne nii ñëpp ngi jël conscience ne ndekete nii la ñu war a téye suñu mairie ndekete lii moo fi am ñun fexe nañ bu dugal ko ci biir nit ñi ku xamuloon budget léegi xam nga luy budget ah oui ah oui oui ay jeunes yoo xam ne dañ leen di fay vingt cinq jeunes bac plus trois ñuy wër ci dëkk bi pour di expliquer nit ñi di leen sensibiliser lan mooy projet bi ak lan la ñuy xaar ci ñoom tey dañu créé dañu créé benn guichet unique. guichet unique bien avant le président Macky ah Sall ah oui ah oui ah oui avant le président. avant ah oui ñun ñoo lancé suñu guichet unique ensuite le président a parlé de guichet unique partout. mais boobu ñun def nañ suñu guichet unique def des accords avec le ministère de l' ñu andil ñu six personnes ñu liggéey foofu demande d' emploi Gueule Tapée Fass Colobane dootoo doxi fii nga ñëw defee ko bu emploi amee fi nga koy xamee on forme les gens même si bind CV ni ñu koy defee dañ ciy former xale yi. su daa des problèmes sur le plan juridique xamoon na ne boo ñëwee fi ñu conseillé la ñun ñun ñu ngi jéem a avancer c' est ça le développement mais xëy na loolu du dërëm bi waa ji jot ci mbedd mi. nga tase ak moo ne man gisuma sama bopp ci mairie bi. gisul sa bopp ci mairie bi parce que xëy na mais dafay fàtte lii ñuy jàngal xale yi. ay doomam ngi ci wala rakam mais tali bii ñu defar ci mbedd bi mu ngi ciy dox bon war na cee gis boppam xëy na gisul boppam mooy xaalis bi place de l'Obélisque ba ci tali yi ba ci tali ñu ngi defar ay tali ñu ngi pavé partout faites le tour de la commune place de l'Obélisque gis nga ñu mel xeex ko bañ defar ko de waaye léegi ku dëkk Colobane de gisuma sama bopp ci maire bi yow place de l'Obélisque lan na ci yow mais place de l'Obélisque bi ni ñu ko defaree euh, koppar ñu ko defaree bàyyeekul ci ci ci commune bi. mais yow yaakaar nga ne. Euh, maternité bi ñu defar fii suñu copie bi suñu xaalis bi. on a passé moyen âge. c' est des relations qui font ça Ousmane. loolu mooy loolu mooy suñu rôle mooy dem wuti ñu ñu àndil defal ñu suñu rôle mooy créer richesse fii suñu rôle mooy jàngal xale yi yee leen yee dëkk bi c' est ça notre rôle. def benn parce que tey jii rek j'ai reçu des dons. d'une valeur mënu ma ko wax pour les postes de santé et les centres de santé. c'est énorme c'est équipement de valeur mais je vais semaine bi prochaine dinaa ko toj wala nga ñëw. <laughs> mais je te dis nit ñi vont voir ça. mais loolu pexe la bu fekkee dañu yaakaar ci xaalisu mairie du ñu def loolu mais il faut que man mii bokk sama waxi bopp man mi nga xam ne maay incarné loolu su ma mënoon am ay pexe yu ma andi fii lu ma fi def. Ah, xam nga salaire bu maire ñaata la. 300000. ñu génn ñu boo fayee boo fayee bu ñu jigéen ne taxi yi du matul 300000. loolu 300000 téye nañu fii ñun ci maire bi nga def. ndaw la moo tax mais kon lan moo waral ak li nga énuméré yëpp en termes de réalisation yi fi def nga ne bi ngay ñëw 400 millions nga fekkoon yóbbu nga budget bi 1 milliard même bu fekkee prévision la wax nga ko mais tamit lan moo indi say challenger parce que on a vu dernièrement xaw ma xam looy dëggal la wala tegoo ko fenn mooy euh, euh, sondage bi ñu génnee ak fan fa mu ñu jàpp ni malgré tout ça. vous êtes maire boo xam te ne daal bien xëy na sa dernier mandat am na yeneen ñoo xam te ne jàpp nañu ni ñoo gën a yee ci commune bi ñoo gën a war nan ngay expliquer sa challenger yooyu taxawaay bi ñu amee. ak acharnement bi jëm ci yow ñu ne rek faw nga pousse sa chaise. ñu ngi toog mais mais Ousmane ñooñu fi lañ nekkoon. ah oui avant may ñëw fi nekkoon est-ce woon nañu. ñi lay challenger nii. mais fi lañ nekkoon avant may ñëw est-ce que yëngu woon nañu mais gis nañ ne am na fi am. fu dara ah amul kenn du fa dem de. non non amul Ousmane dafa am luñ fi andi dafa am lu may hmm. dafa am lu ma fësal Ousmane. un plan de un plan communal de développement de vingt milliards. vingt milliards. oui les les les bailleurs dañuy teg xëccoo pour ñëw ñu jàppale ñu le système des Nations Unies di ko piloté amul fenn ah amul fenn donc comme y' a quelque chose écoute y' a ce qu'on appelle la sécurité humaine. ils nous ont donné deux millions de dollars. la sécurité humaine. deux millions de dollars à disposition de. de la mairie de Gueule Tapée Fass Colobane sur trois ans pour la formation des jeunes l'employabilité des femmes euh, la la la la la l'employabilité des jeunes ak libéré jigéen ñi ñu am lu ñuy lu ñuy lu ñuy toppatoo kër yeeg yooyu mais loolu bu ko nit ñi gisee dañuy ñëwoon ñëpp nag am nañ droit bi wax dëgg yàlla euh, gis nga ñooñu ñëpp bu ñu daje woon dinañ def ci fii loo xam ne lii Fass Colobane Gueule Tapée miroir lay doon. ah justement da nga leen di woo. pour suñ daje moom. mais su ma ko mënoon. Oh, autour de votre personne xam nga ne su ma autour de ma personne ou d'une autre personne. man sama objectif. mooy développement commune bi. man développement commune bi mooy sama objectif. que nga remplir wu noonu. la commune bi jóg. c' est ma commune j' étais président de l'écurie de Fass pendant très longtemps j' étais président de l'ASC pendant très longtemps fii laa defee lépp na commune bi dund na commune bi doon référence ba bu ñuy waxati dañ naan gën dépense Colobane parce que parce que frontière u Dakar. Hmm. canal bi la woon. ay point E yi bëgg fi nekk ay kilifa ak yooyu mais ñoo nekkoon banlieue ay Zidane ak yooyu. mais justement dinañ ci ñëw canal bi jafe-jafe la ah dinañ ci ñëw mais il faut bëggoon nga yegg sa logique wax noonu que ni euh, frontière bi canal bi la woon. frontière bi canal bi la woon. donc ñun ci biir Dakar lañ mais ñoo gën a néew doole ci Dakar mais ku xamoon Gueule Tapée Fass Colobane yaa sept hmm. xam ko tey xam na ni dara ngi fi. la fa ngi fi de. am loolu la waral gaañu di. ah foog ñu ñëw nag it loolu ñëw et puis ko tere. ñu ñëw andi seen xam-xam def ci ku ku mën a développer commune bi rek ñëw wax dëgg yàlla man sama ambition euh, dëgg la naam war naa défendre bilan bi nga xam ne mais ñun dañu fi jëlee ah loolu la ñu. waaw mais ils ont fi bëgg a jëlee. waay waay dañuy dañoo jàpp ne war naa mën a noppalu. waaw waay mais ma noppalu bu boobaa. bu hmm. ko yàlla dogalee rek ma noppalu man amoo problème boobu mais ak lu mu mën a xew. lii ñu yëkkati ba mu yëkkati fii nit ci ñëpp jàpp mu jóg. nous sommes un exemple maintenant que ñu def ay sondage sondage dem jël échantillon cent vingt personnes. wala nga organiser xam nga loolu du ma ci discuter parce que xaw ma ko ko def xaw ma nu ma ko defee xaw ma tax mu def ko hmm. quel est l' objectif loo gisu ne nag hmm. loo gisu ne am na lu ko tax a jóg lu la ko yëngal ko doole li ko yëngal nag man xam ma ko ça ne me dérange pas du tout parce que ñoom xam nañ sa qu'on vaut on sait ce qu'on a fait ñun li ñu fii xam nañ ko ñun donc kon tranquillement ngeen di demee ci élection mais j'y vais tranquillement mais du ma fàtte nag hmm. mais mais mais dogal bi yàlla ko yor lu mu def rek noonu la baaxee mais na def bu commune bi dem kanam Ousmane looy jóge fii keneen ñëw commune bi dem kanam loolu bu amee du ma kenn du ma gën a commune bi dem mooy sama yitte commune boo xam ne ñu ngi ciy def ay tali commune bu ma sànni xiin rek mu taa ren am na ay koñ yoo xam ne nit ñu génn di tàcc parce que taawul parce que paa nañ ko defar nañ ko du sot ko ndox mi ñooy dem man loolu laa bëgg ñu xam ne Gueule Tapée Fass Colobane xale yi nekk ci mbedd bi ñu wutal leen liggéey xale yi am lu ñuy def ñu ngi créer ay emplois pour des jeunes dans cette mairie là j'avais trouvé quatre-vingts emplois mais on est à à peu près à quatre cents emplois ay permanents ay temporaires mais ñu ngi liggéey donc ku nekk ku nekk kii amul sa gëm c'est ça qui m'intéresse c'est pas pour moi de que je reste maire moo bañ a nekk maire alaw axam ah, yàlla rek moo xam mais li ma bëgg mooy na gën tàppe face Colobane suqalako mais bu nga déggee li la l'impression euh,

dafa manqué ñu bëri xam dama gëm loolu gis nga gis nga nguur yàllaa koy joxe ku mu ko nangu jox da koy jox bu dee xale bu ndaw bu dee mag da koy jox yàlla moo koy jox tuuti nguur moo koy joxe lépp du man du kenn yëngu suba ba ngoon bu yàlla ne déet déet lay mais nañu yëngu ci pas pour man sama biir bii duñ yëngu pour ñun li ñu bokk te mënuñu koo xaaj mooy mm. commune bi mooy Dakar mooy Sénégal ñun lañ bokk mënuñu ko xaaj nañu fexe bu jub ci développé loolu mm. li nga doon kas ci suba gi naan sànq bi ñuy commencé naan insalubrité bi nañu fexe bu mun ko defardoo loolu mooy suñu ndam man la man la non man man man gëma loolu maintenant nag dañuy nekk ci champ boo xam ne bi da nga obligé nekk ci kanam da nga obligé di li ngay wax mais ngëm-ngëm gi dëkk dëkk dëkk dëkk mooy li ñuy topp li ñëpp ñu bokk te mënuñu ko séddu. kon loolu bëgg na ñëpp bàyyi ci coow li nekk nii ñëpp nañ ci bàyyi est-ce que que gis nañu quand même ci coalition benn bokk yaakaar boobu mooy tur ci tasaaroo la jëm. parce que ni ñu koy gisee. man de man de yéen wax yi waaw waaw waaw. jàpp nga dina yomb Ousmane waaw. man ah mu ngi tenir euh, tas rek bis boobu yëngu na yu bees yi tas na. ah seet ko amul coalition yu mangé testé waaye yéen ah, xaw ma yéen ah, xaw ma euh, euh, dañu pause xaw ma bu fekkee da yeewi Dakar xaw ma yeewi parce que Dakar mi sursoiragum ay je ne sais pas en tout cas ko wax te mu am ci exactitude mooy Benno fi yàgg te fekk ku nekk li la tax a te nag dañu nekk euh, ci à la veille des élections législatives ak élections présidentielles xamuñu présidentielle ñu yene l'homme politique pur et dur xam ne moom liggéeyam politique rek la kooku su ko maire yi su ko maire bi ne cax rëcc ko te xam ne fu mu jëm législative ak présidentielle day ñàng ci moom donc dana ci laa nga am pour am ci pour des parce que loolu muy métier te lii opportunité la pour moom xëy na occasion la boo xam ne bu ko ratee législative bi bokk ku bokk législative président musiba dal ko donc moo tax mu ñetti parce que euh, euh, façon élection yi xaw ma na ko suñu am parce que man man daañu ma xaw ma amoon na mais bii moom ni mu toppatee mu toppatee ku ku fi def politique ku ne boo ñàkkee bii tuur hmm. ñàkk nga tuur yi des moo tax mu metti moo tax ko ci metti kon coono yëpp buñ la bàyyi xel mooy les ñi ngay wooyee des politiques professionnelles xëy na ñooy amusé parce que peut jàpp nañu ni. seen i seen i seen. amusé de waaw waaw waaw peut être amusé des produits je parce que ñooy amusé la ñuy def ñoom ah mais est-ce que du li ngay wax nii moo nekk ci suuf. na nekk ci suuf ba tey mais yaa ngi défendre sa bopp. man man am naa la métier donc man damay ñëw jàpp. gëm naa ne su ma ci defee sama xam-xam def ci sama relation nit ñi jàppale ma mën nañu yëkkati suñu gox mu def ci lu def bu jeexoon nga dem reprendre son métier du dëgg mais am na koo xam ne ki moom politique mooy politique dafa bëgg def politique moom loolu la sentir mais kooku il faut muy apparaître toujours léegi bu ko municipal yi rëccee c'est compliqué pour moom il faut dire la vérité aussi la vérité pour moom mais il faut les respecter aussi parce que c'est notre choix aussi c'est ce qu'ils avaient choisi maintenant loolu ñu choisir suñ ko boolee defar rek gëm ne ñoom bu ñu fa toggee dañuy defar mais alhamdulilah rabbil alamin alors investiture yi liste bi bu génnoon gisuñu Ousmane Ndoye jiite ko muy doon ci yow. ku julli ñaar ak sant yàlla bu bàyyi ko ci président Macky Sall. looy ko na man ma ko sax jël suñu man la ma jàpp ci ba li ma mën yëpp ma def ko suñu nee du man ma jàpp ci li ma mën jàpp ne leen lool pour gën a tàggat solo soo dem mais ma dem toog noppalu ji amu ci benn problème bëgg naa ko ñu dem porté naa problème boo naa ko défendre sa danaa ko défendre li ma mën parce que nag euh, maa ko jur ko jur maa ko xam maa xam la ci maa xam nañ ko toggee man maa xam donc li ma gën a te di ko ñaan yàlla subhanahu wa taala te di ñaan population yi ñu comprendre ko mooy war naa mën a terminer projet bi mu pare de taper face Colobane face émergent dafa a dem parce que c' un exemple en Afrique il faut fondamentalement ñu réussir ko le succès du Sénégal le succès de Dakar le succès du Sénégal parce que le FRIAC pour l' Afrique de je me bats pour ça et ça dafay solution pour soqali de telle façon te incha allahu rabbi dina soxla. d' accord est ce que ci wàllu formation bi yegg nga ci ndaw yi ànd ak yow gëm la jàpp ni exemple nga ci ñoom que nga fexe ba leadership bi ngay incarné ba xëy na fi ngay dem ci gën bi sàmm te kilifa yi ñoom ñu en charge topp la ngir xool nooy doxalee ñooy defee ngir nga ëllëg ñoom ñu mën a assurer la relève bis bu jotee ba sànq say wax yaay wax ni. Euh, am na maire yoo xam ne euh, peut-être bu ñu yegsee il va leur falloir du temps pour comprendre pour toog est loolu dafay sous-entendre que euh, ñoo xam ne dañu war a waajal avant ndaw ñu ànd yow est-ce que waajal boobu yaa su may wax ak xale yi su may nekk xale yi dama leen di jaay sama bopp wala fu ma jaar ba ma yegg fi. dama leen di expliquer fi ma jaar ñu bañ a yàkkamti ñu nekk ci dëkk yoon bari na xam-xam lu ñu bari bari bari xam-xam su fekkee ne euh, ànduloo sa ngor su fekkee ne ànduloo ku mun doo mos a yegg fi nga jëm lii laay jàngal xale yi. ñu hmm. jàngal xale yi ne nekk ci dëkk si capital boo gëmee yàlla ba pare ngëm gi da nekk ci dëkk boo nekkee ci dëkk da ngay nangu muñ yoon wi du tey lay sotti. dana gudd dana bari xam mais nga jëm fii rek te ànd ci dëkk ànd mu ngor boobu ci doolee ngor gi lay wax da ngay dem loolu rek laay yi bu dégg bëccëg c'est une chanson que je le répète tous les jours bu jàngkat alxuraan nekkee ma ne yéen yéen jàngkat alxuraan yi ñun ñi moom ay ci talam-talam lañu mais dem ngeen jël wala wala asri ngeen tekki ko xale yi yàlla mooy wax ak nit ñi jëlal wax asri tekki ko nit ñi sama maam bi ma yar dafa am wax bu alxuraan yemoon ci wàllu accéléré na parce ñi ñàkkul mooy ñu a séddoo te mën boo bëggee tey nga am li waa ji def cinquante am du sotti loolu lu ñuy saxal yi la te loolu dafa war doon suñu base nekk ci dëgg nangu muñ te di dox yoon te ànd ak ngor bu la dara tax nga jaay suba dafa capital suma dafa ñu wax nii c'est très te loolu ñun dañ koy saxal yi parce que loolu la sax te jàpp naa ne loolu ci yoon la du alal ji bari bari bari bari bari suñ fekkee ne am na suñu suñu valeur dañuy ñàkk ko alal ji am benn njëriñ. c'est important message boobu noonu nga jàllale euh, dañuy jeexale question réponse euh, maanaam suma waa question réponse dama lay laaj nga ne oui ou non waaw loolu rek loolu la ñuy jeexale incha allah jaar <laughs> nañ faa ah. euh, mandat dina am ci réew mi waaw wala déet. alors yàlla rek xam. non waxoo waaw waxoo déet. Ah, da nga war a wax waaw wala ah, déet. Ah, man xaw la man que bokk nga ci ñi xam ne da sàkku procès Ousmane Sonko Adji Sarr àgg procès ba ñu xam lan moo am. pour leeral déglu ku mel ni Khalifa Ababacar Sall li euh, ko dal jamono jii jàpp na ni maanaam le fait que mënoo jouer ay droit civique ba mën a bokk ci ay élection comme ñu ko dundee ci yu weesu am nañu jàpp ba léegi bu jaaru fa mu war a jaar ñuy dund ay amnistie du ci génn euh, Khalifa Sall bokk nga ci ñu euh, sàkku mu doon candidat en 2024 li may ñaanal Khalifa Sall moom c'est un politicien li koy ñaanal yàlla yàlla léppam mat ba mën a continuer politique léppam mat nag mooy ñu teggi ko lépp ñu te loolu la am ñaan ñu ngi lay gërëm di sant